asalaamaaleykum mbokk internet bi safoo Diassigui TV dalee nag jàmm ci seen émission deux mu trois mouvements tey nag dañ leen indil benn thème boo xamante ne dañ ciy waxtaanee mu sori ci ñun loolu muy laabaan laabaan ku ko dégg si xel dina dem ci aada ak mais tey dafa mel ni dafa bëgg a nax saay ndax dañ koo farataalul am lii waaye dina leer ndax tey ñu ngi toog ak benn euh, ay kàngam yoo xamante ne lu waaye xamul woon dina ko ci xam tey ca bisimilah dañ ciy dal ak ngay xamante ne ñoo fi toog di góor ak jigéen tey daal xam naa ne débat bi du yomb waaye nañ ko jéem a gérer. asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi ñu ngi leen di jaajëfal waaw di rafetlu tamit thème bi nga xamante ni Yacine invité nañu si pour à ce que ñu indi si suñu xalaat. te yaakaar naa ne fekk si kanam tuuti ñun dina am li nga xamante ni dinañ ko si apporté suñu xalaat kese la nag waxuñu forcé wuñu kenn parce que débat la dafa yaatu ku nekk am xalaat waaye Sénégal dafa tam boo waxee sa xalaat ñu koy gisee ne nag nee na waaye man moom kenn mënu ma teree wax sama xalaat si li wa rahmatullah siyaar nañ leen yéen ñëpp waaw mu ñun moom ñu ngi ci jaasi ji te débat la daal débat la boo xamante ni moom dañ ko war a décortiquer xam nga mooy loolu léegi nag ñun ñoo ngi déglu nag yaay booy mu wax ñun ñu xool na lay def ba wax ci sunu xalaat. asalaamaaleykum mbokki internet yi maa ngi leen nuyu di leen bu baax. asalaamaaleykum wa rahmatullah nuyu nañu ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw kenn ci nekk rawatina mbokk internet yi nga xam ne ñu ngi suivre Diass Dji TV rawatina émission bi nga xamante ne am na solo lool te ndaw ñi moom ko rawatina nag fi jamono toll tey ci àdduna macha allah. asalaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi nuyu kenn ku ci nekk sa tur ak sa sant. ñu ngi jéggalu nag bu baax a baax a baax parce que jot moom amul mais nu ñu def rek wax ci defe naa ne débat bi moom dina arrangé ñu bari ndax ñu bari dañ koo fàtte woon ndax laabaan moom kenn mënatul wax sax li ci jëm ñu ngi kenn ku ci nekk turam ak santam. gannaaw ba ñëpp présenté woo léegi dañuy daal di rek jéem a dugg ci li nga xamante ne moo ñu fi tax a toog muy émission wu li ñuy waxtaanee mooy laabaan man li may laaj mooy ndax laabaan moo ngi am ba tey. man de yaay booy man dafa mel ne gis naa koo gis de xaw ma nag ba xam mi nga am da tey waaye may gi naa ko gis daal nee na damay laaj sama euh, yaay booy yi ba xam ñoom ñu ngi koy gisam déet. waaw laabaan mi ne am mi ne am ba léegi ndax foo fekk euh, ku baax ya am na ku bon. mu mel ni Yacine dafa am lu mu laajte mu mel ni dañ ko gisoon ci jamono mu dem ba yàgg mu mel ni luy bëgg a xewi muy laabaan donc man ci contexte bi ma bëgg a dugg seere ci biir question bi mu laaj boofu buñ koy xool tey buñ ne buñ ne mi ngi am duñ ne amul waaye bëreetul. ci li nga xamante ne mooy li ñu seetlu ci jamono. bëreetul comme bu njëkk ni ko mag ñi farataalee woon bëreetul te buñ koy xool fi mu mooy tey jii dafa bëri ay bagages yoo xamante ni euh, li tubaab bi naan en voie de disparition la nekk bëri na suñuy cosaan bëri na loo xam ne ci suñuy aada la bokk yoo xam ne tey jii buñ koy xool dafa commencé euh, raaf amatul wala nit ñi fonkatuñ ko ndax lan. dund bi nga xam ne ñu ngi koy dund di roy ci nasaraan yi lu bëree bëree bëree bëri ba tax na tey jii la nga xam ne moo nekkoon suñuy cosaan nekk suñuy aada fonkatuñ ko kon jàpp naa ni donte mi ngi am am na ko gëm di ko dund ba tey mais buñ koy xool bëreetul boo xoolee ci téeméer yow téeméeri doomu aadama yooyu gis fukk ñi ñoo ko ci ñoo ko ciy dund donc mu mel ni kon loo xam ne mi ngi mi ngi mi ngi naax saay ci sama gis-gis bu gàtt man noonu laa ko gisee macha allah. ah man de fa dëgg yàlla gëj naa gis laa baat ndaxte ñun sax dañ daan toog léeg-léeg ñu yàkkam ci takku jot ñu takk suñu benn copine ñu dem préparer la bande bi mais léegi suñ la takkee sax sa jëkkër mooy njëkk a bañ la bande lu dul ay lune de te ñu defe naa ne loolu moom lañ am mooy suñu baaxu moom mooy suñu aada mooy suñu cosaan mais léegi dañoo dem ba di ko fàtte ci ay lune de miel te lune amul sens parce que tey boo amee ndaw ak boo amul ndaw kenn du ci xam dara mais ñu loolu lañ soxla maanaam toog waxtaan bége comme soo amee réception ni ko sa xarit yi ñëwee di la jox cadeau mais su nga tëdd ak sa jëkkër mu doon nouvelle bu neex loo xamante nii mooy premier jour boo njëkk a xam góor say mbokku teral la say yaay say bàjjen ñëpp ñëw kontaan loolu defe naa ni amul dara lu koy gën a rey mais kantaay dem li demee def fa une semaine amul benn sens man boog de ba sama mag tëddee laa gëj ci laabaan ba tey gëj naa koo seetaan mais ñun moom suñu aada ba tey ku tëdd dañ lay defal laabaan defal la suñu baaxu maam def suñu aada ak suñu cosaan parce que ñun loolu lañ xam. maa ngi rafetlu kàddu yi mais man moom fi may dikkee ak gars yi fi ñuy dikkee bokkul man man dama jàpp ni ba léegi muy am te man temps est passé gis naa ñoo xamante ni ñooy def laabaan te tamit il faut que ñu fàttaliku benn affaire si àdduna Yacine. Mhm. mooy que ni bon ñun ñi dañoo maanaam àdduna bi dafa commencé di. demee feneen maanaam adduna bi dafa commencé di développé nit ñi di amaat yeneen mentalité donc am na si yoo xamante ñu ko daan dund mais jamono ji li ñu mënatuñ ko dund mais bu fekkee jamono ji ni li maam yi daan dund ñu koy dund ba légui kon fa la waxé développement la ban mu ngi am comme kii légui la ñu wax ay lune de miel ak affaire yooyu peut être bon lolu question da waxtaan ba jubóo la rek tay ji ba waxtaan rek sa ki nga xamante mo nga ko bëgganteel nañ dem fi ñu def fa léegi lolu la ban la xam nga la ban ay maam yi ñëw papa yi ñëw ñëpp ñëw yaay yëpp tok affaire yooyu lolu dafa weesu weesu nañ jamono yooyu noonu léegi dañoo nekk jamono bi nga xamante ne ñaari nit yu bëggante ñoom ñoo xool li ñuy def ak leneen arrangé ñu def ko ñu dund ko mais quant ay laabaan maam yu njëkk yaak affaire yooyu noonu loolu baax na trop mais wax dëgg yàlla man ñaari nit yu bëggante moom bu buñ mënti joxante rek man pour man loolu c'est euh, c'est euh, bon c'est validé quoi loolu mën nañ ko accepter ko mais ay ñëw maam yeeg man moom loolu moom wax dëgg yàlla man sutura dama ko taamu si lépp loo mënti gis si àdduna donc ñaari nit yu bëggante moom lu ñu mënti def baxna man dama japp ne la ban ba léegi mu ngi am mais discrètement la koy nit ñi di defee donc dafa am benen forme bu ko gaay di defee mais léegi jeunesse bi ñom ñoko changer mais mag yi nag bëgg la mami daan dund ba léegi ñukoy koy dund loolu mënul nek nak yassine loolu mënul nek mais ngir man d'accord ma ci contexte boobu li tax tam dina joxe argument on est en Afrique hein. ci réew mi ñu nek dañu am yo xamanteni ay réalité la yo xamanteni fi lañ ko fekk fi lañ ko bayyi te fi lañ koy bayyi du moins donc. te wax naa ko léegi ci suma biir wax bu fekkente ni dañoo bëgg a roy nasaraan si ba li nga xamante ni mooy yi nga xam ne suñuy cosaan ak suñuy aada. ñu wàcc ko defe naa ni fi mu ne tey ji moo tax ne jamono ji métti gi mu métti ak xat-xat yi ci am ak yi ci am yëpp di xew. parce que euh, soxna si mi ngi koy wax léegi ab euh, fi ne takk jabar dem lune de miel ñëw ñibbi si.

te gis nga fi ne fi jamono ji toll nii li tax muy gën di jaxasoo li tax muy gën di metti mooy la nga xamante ni moo ñu doon jëriñ moo doon jëriñ suñu maam yi di jëriñ suñu ndey yi ba ñu judd ñun ñii ñu wàcc ko fi bëgg a jëli leneen loo xam ne moomuñu ko loolu mooy liy jaxase àdduna bi di indi musiba yi di indi xew-xew yi xew donc moo tax man ne man contexte boobu man euh, d'accord ma ci donte que ni peut-être que ni nag peut-être que li ngay wax ci sutura mm-hmm. sutura euh, tey ñu bëri d'accorduñu takk jabar mu tëdd ñu naan ñuy xëy di tëgg na mais mën nañ ko def ci beneen anam boo xamante ni mu tëdd am ndaw am tëtuñ xen kenn du ñu wax ko entre famille parce que loolu tam boo xoolee dafa am lu mu doon def ci jamono danaan yokk jom jigéen ñi ñu gën a mën a téye seen bopp gën a fonkat seen bopp xam ne li ñu yor tam du ay fo du ay caaxaan mais tey jii bu fekkente dem nañ ba yooyu yëpp amatul léegi ku takk jabar yóbbu ko lune de miel dañuy bàyyi nañ suñu loxo. donc donc man moom Yacine Samir fi muy waxee man booy xool man pas waxé je suis parce que man waxuma fi mais waxuma man bañ na dama ne jeunesse bi ñun ñoo ñew changer forme bobu noonu manam ñun dañoo baxo di wax ay sutura ay kersa ay jom ay fulla yoy dañ ko baxo manam diko dundé ñu ñukoy wax ñu se ak mom kon tey jii bu féké jamono maam dañ ko wara di dund ba légui kon ñun wul ñu indi ay lamp ndax xamu ñu won ay lamp yi ni ak affaire kon ay maanaam kon tey jii dafa dañoo toll monde bi nga xamante ni bu ñu nekkoon si benn étape dañoo war a jóge si étape boobu demaat feneen loolu la ñuy wax développement mais bu fekkee fi ñu nekkoon maam yi li daan wax ñu ne loolu la ñuy dund ba léegi kon am na ñu ne ñun dootuñu ko defati am na ñu si bëri yoo xam ne dootuñu ko dund kon laabaan man dama ba léegi mu ngi am mais gars koy defee beneen façon la ñaar ñi bëggante kay am nañ droit ne ñun am nañ suñuy affaire yoo xam ne mën nañ ko def mais tamit fan lañ fàtte affaire suutura Yaasin suutura fan lañ ko fàtte suutura tey man mën naa jël koo xamante ne peut-être boo dama ko bëgg mu bëgg ma am noo xamante ne melu ko man xam naa ko ma bëgg suturaal mais ma am nu ma def ak moom mën naa fa jaaree sax ne kii fekk naa si fekk ma si moom ndaw donc valeur yooyu moo yooyu noonu buñ ko di naxasal valeur yooyu noonu moo yooyu noonu buñ di réeral mooy maanaam que ni ah sutura ki nga bëggantal te ma yaakaar naa tamit bépp sutura boo xamante ne sàngo ko rek war na si diggante ak donc yaakaar naa ne laabaan mu ngi am ba léegi nii mais beneen forme la mën ngaa jël sa soxna nga nga jël sa soxna moo xam am na moo xam euh, amul mën nga koo suturaal te fekk du ngeen dem linde mel mën ngeen nekk ci biir néeg bi nga suturaal ko waaw loolu yëpp yow di xam bu fekkee am na di nga ko xam bu nekk mais bu nekkee sutura moom mais man xam nga lan bañ ak lan laay lan laay fan laay waxee maanaam tëgg bi ñëpp ñëw xam nga tey ji nga tëdd ak sa jabar ñëpp ñëw maam yi taxaw baay yi taxaw majjat yi taxaw rakk yi ñëpp taxaw ñu naan mu ngi tëdd ak jabaram si biir néeg bi mais xam nga mais imagine loolu rek mais dañoo dépassé monde boobu noonu nga xoolal mu ngi tëdd jabaram foofu noonu mu ngi nek ak jabaram fofu non mhm. léegi bo guenne après ñu naan sër baa ni dérèb deret yaa ngi patti para di tepp di paccaxu fa affaire yoon yooyu nañ ko dépasser nak dañuy waxante deug nak Yacine wala <laughs> wa ñu jox soxla ci da melni amna lu ci bëgg wax mom man dal ki def maay man yow lan lan la laa la wara a tontu ah. gis nga tay ji ni ah xam nga nga tëdd nga am ndaw tay fay xarit fay mbokk ñepp tay yow mom di xaritam lan lay def ci yow da lay yok jom mhm. mais tay bo démé liñ demee donte ni so amu ndaw sax sa jëkkeur mën na laa suturaal ñun gisunu sër defoo la ban xam nga ñun lool intéressé wu mais après nit ñi yow lañu kurgoro, imagine nga sa kër goro juuxu ba fajar xey sa goro jël sa jox sa yaay du la yab nu mu mënta démé bu waxé di nga ko tontu sa doom bu waxé dina ko tont so amul ndaw nak bu ne la ndem yel da ci sawar laabaan dafa baax ba tay dañ ko wara def li ndem yel lañ wara jël ko parce que tank yaangi dem di li ndem yel donte ni sax so amé ndaw ak so amul ndaw du feñ parce que lan moy li demel tëddee sa keur jeuker wala sa keur goro lan mo ci lan moko dak fu la neex dang fay taxaw nga xulu parce que fofu nga tedde mais hotel nga tedde sa jeuker mën na la sutura lool yep am mais yeen goni sax mëno leen sutural ken parce que lan moo tax hmm? ku ngeen suturaal ban xol billah yeen mëno leen sutural ken du ngeen sutural ken yeen ku ngeen sutural tay tay tay suba ngeen ko non non yéen jigéen yéen amul sutura. ñun ñoo amul sutura daa mel ni suñu suñu suñu mbokk mi bëgg naa wax dara ñu daal di koy jox rek si yow koo ne amuñu sutura nga gën nga xamal tey bi ëllëgee mën na la ko waxal laabaar nag dafa am solo ndax ki xamoo ko sa bopp bi fekkee ne danga nekk si kër famille du fa dund dina tekk lu baax dina tekk lu bon mais dangay fas jom gat xool si sa yaay nu mu doon dundee ba toog fi ñu toll naa ne suñu génération bi bi def loolu. gëm sa bopp tamit boo amee ci sa bu coo sa yaay ci yaakaar si yow dina ko gis na ko ni moom ñoom ñu payam sutura moom zéro waaw man wet googu wet googu moom wet googu moom ñu dégluwante ñu dégluwante ñu dégluwante waxtaan bi daw ko mu bëgg a neex bu ñu dégluwante rek bu ñu dégluwaat la yaa ngi ci yaa ngi yaa ngi ci ñu dégluwante ñu dégluwante non yow yaa wax non contre la dañ lay dañ lay dégluwante rek waxtaan bi waxtaan bu neex Ndeye Ndiaye wax kii am lu ci bëgg a wax man fi ma bëgg fi ma bëgg a dugg bala may jox Cheikh mooy euh, gis nga jamono biñ toll wallahi al bëri na yoo xamante ni dañ koo bàyyi. Mhm. te bàyyi gi ñu ko bàyyi moo ñuy sànq. Giri xam nga euh, sutura. Mhm. am na ci loo xam ne ci ñaari xale yu jigéen yi dama leen dama leen ni dama dama leen ni dama am na fa wér goo xam ne dama ci ànd ak ñoom parce que man dëgg bi li may gis chaque jour laay li may dund. Mhm. man noonu laay waxtaanee noonu laay dundee tamit mooy sutura nit yàlla moo koy bind bindaale ko ak ay jikko. gis na jikko yooyu. Si tu bëgg faire tu le koy ki ne tu ma xëy mu par force tu mënu ci dara ki ne pas ma bon tu mu bon mais li tu def ci journée est-ce que réellement une continuité. Mm-hmm. parce que lii donne continuité c'est li réel en fait. ce mm-hmm. bi nga sais ne réel mooy bi nga xam ne continuité. Je ma un exemple man ne ma pas ci kenn sama jël exemple. dañu yor ay soxna tak leen ci sunna ak farata li ngay wax ni dund nako ba baye parce que sama famille jabar man lool ñoma proposer won ñoma imposer won lool giri naxante nak ñom ba def lima bëgga def ta bal takul sagar xéñul ciow jibul ken xamu ci lool ken xamu dara kon bu fekkene ni mom bu ñi ngi naan sutura tuñu fofu damay bañ man personnellement la la wax man personnellement bokuna ci ñuy dund sutura parce que sutura xamul lutax jikko la bu ne ci nit boo xamante ni nit mënu koo ci ginnaaw mhm. parce que foo mën a dem ci àdduna di nga ko yóbbaale parce que sutura dafa am solo lool nit lu muy dund lu rek am na sutura am na am boo xam ne sutura daf ci am wàll mais nee naa la gi ma nga xam ne moom mënuma cee d'accord ba keroog yoma xiyam ci ngoon ah mooy est-ce que ñu wan teg lu concret sama pat mooy lii réalité la réalité boo xamante nii dafay soññ maanaam njàngale da cee ne parce que dina tax ki tëdd am ndawam

waaw juste ñu bañ ko déglu mu àggale. rek après mu neex. bu ñu la joxee micro nga wax lu la neex. xam nga jamonoy maam dafa ba yor micro bi yow nañu ko déglu mu wax boo yoree micro bi après nga wax ñu ci am loo xamante ni mhm. daf ci am loo wallahi azim ba ilaa yow mi du jur njëriñ mhm. te gis nga lii fi maam yi doon def njëriñ la doon jur parce que xam lu tax ba njëriñ la doon jur daan na tax jigéen ñi gën a fonk seen bopp. gën a am jom gën a am fulla ndax tey jii koñ bii bi nii ni ñu dëkk bu ñu fi jëloon benn jànk tey jii may ko fi mu xëy tëdd ñu xëy tëggal ko dana tax koñ bi mbedd mi. janq bu fi nekk. di nga bàyyi xel ni ah diw kat maye woon nañ ko bañ ko mayee defoon na nangam kon man dinaa suturaal samay waajur. suturaal samay kilifa suturaal sama bopp ba bu ëllëgee amoon ma am ko. donc ci context yooyu ba sax il faut ñu ñu xel dafa am yoo xam ne mag ñi dañ ko def buñ ko daan def non damay joxe benn exemple xalaat xalaat ah, non dama la dafa may émission moo ko ah non kon bu la neexee ma jox ko sama xalaat laay wax non ma tere wax sama xalaat léegi ñu jox ñu xalaat wax mais da ngay toog ma daan man ma wax léegi fi may daanale ma daanale jox dinañ ñëw dinañ ñëw bu Cheikh waxee wax waaw ma daan ma daanale day jeexal ñu jox kii mu wax àggaleel ñu ñu cest à émission bi dafa neex waa émission bi dafa neex émission bi dafa yaatu ñun ngay wax da toog ñu déglu la nga wax ba pare jox ndey ñaay parce que ah, wax ko déglu <laughs> waaw waaw waaw nañ ko déglu waaw léegi bismillah nañ ko déglu moom yow giri yow léegi giri yow fii nii nii yow nga wax noonu maanaam dama jéem a contrer sapanaga sapanaga sapanaga ah. fi nga waxee c'est diamétralement ak fi nga wetee moom la nit ñi di penser est-ce que tu bien compris non boo xoolee ne mais bien sûr wuyu rek dama ah, bëgg xam ne carrément affaire boobu ngay wax wax ne la garantie la mhm. xam nga garantie oh, c'est parce mais garantie la c'est parce que loolu noonu non déglu ko déglu ko sama rak xam naa lay xamal waaw sa sa genre sa genre sa genre sa garantie la moom moom xale la waaw nañ ko moom xale la moo loolu tax xamul lu bare bare ñun nag ay mag lañ ay mag yu jur mhm. est-ce que ma bien compris ñun am na yoo xamante ni ay garantie la fii ci Afrique Afrique ñoo am seen i mode bopp ah. mais faut pas suivre les occidentaux tubaab yi ak ñun bokkuñu bu doon loolu la kon doo fi gis ay ndëpp doo fi yow yaa ngi nii boo amee problème dem ci sëriñ yi wuyu nañ ko nañ ko bàyyi nañ ko nañ ko may waaw nañ ko may mu àggale dañ ah, ko fay trouvé dañ ko fay fekk te loolu ñu fi fekk noonu moom lañ waaw moo moo mën a dimbali loolu ñu fi fekk noonu moo ñu mën a dimbali mais yow boo ñëwee taxaw bëgg indi benn philosophe boo xamante nii maanaam nouvelle génération bi la ça n'existe pas li gën a li ah. gën a li gën a garanti mooy jigéen. Mhm. tëdd ñu ne kii am na ndaw loolu moo gën a garanti sabarak loolu day permettre yeneen jigéen yëpp di xool ci moom mais yow doo ñëw taxaw naan ay philosophe ay affaire da ay dem fee leen di miel karank ça va t'amener un malsens moi te dis ça boo xoolee fii génération bi nii génération bi bees bi yëpp nii ngay gis ñi xoolal ku dem ñëw deux mois nga dégg ñu la tas na deux mois ñaari weer nga dégg ñu la tas na ah kon yow li ngay wax lii nii ñun wékkuñ foofu même man man moom li ma gënal man amoo xam-xam waaw man moom li ma gënal mooy man man koo xamante ne nii carrément dañuy dem taxaw fee laabanal ko bu ëllëgee nga xamante ne bu génnee kat mën a sigi waaw lu leer laa lay wax non da ah, xool liñ fi fekk la te liñ fi fekk noonu loolu la ñu mën a continuer ça n'a rien à voir ak sa diplomatie du la tee yor kóol du la tee def leneen du la tee yéeg avion mais tradition la mais tradition bi il faut nga suivre ko yow lii moo tax. waay waay ñun ñëpp gëm nañu tradition sa genre bi moo tax suñu dëkk bi dellu ginnaaw. waaw dellu ginnaaw yow yaa tax ñu dellu ginnaaw xoolal yow li waaw mbokk yi comme ni ñu ko waxee sànq ba tey rek yéen ci seen émission deux temps trois mouvements te li ñu waxtaanee daanaka am na solo lool ndax euh, waxtaan bi moom moo ngi moo ngi moo ngi bëgg a jax waaye li may fàttali rek mooy fii moom dañoo toll ci mim réew te réew bi ñu nekk moom ku fi laabaanaloo rek jàppal ne bu ëllëgee dana la laaxaanal te man li may laaj mooy dafa dafa am li may yàgg di dégg maanaam Euh, bu nit tëddee maanaam bu ji jigéen bu ko bu ko jëkkëram jëlee sër boobu noonu buñ ko fóotee ñi ñi nee nañ du day te nee nañ lu sa jëkkër am problème boo jëlee sër bi muuroo ko julli ci fajar su ma loo ci ñaan day am mm-hmm. mais man li may laajte mooy ndax loolu noonu yow mi doon wax sànq ay lundam yel gëmoo loolu loolu noonu léegi loolu loolu nan nga ciy jàngat wax dëgg yàlla loolu moom man xaw ma si dara affaire yooyu moom mm. xaw ma si dara nit nit nit bu tëdd nit deret génn ah nit bu tëdd ak nit deret génn mu ne dañ koy fóot buñ ko fóotee ba pare sa jëkkër deg si problème nga muuroo ko boo ko muuroowee ba pare après nga julli ñaari rax nga ñaan mu mu problème mu génn si <laughs> amale wax yooyu sax dafa nekkul ay wax yi nga xamante ni sax day développé loo nit xam nga nit boo bëggee muy avancé si xelam dafa am loo xamante da nga koy wax loo xamante ne day nekk lu réel xam nga genre wax yii nii day tax xale yi dañuy dañuy fainéant dañuy dañuy nekk ñi nga xamante duñu duñu xam àdduna da nga leen di gëmloo affaire yoo xamante ni chaque jour ñu dañuy nekk en retard boo gisee ñu naan Afrique dañuy chaque jour maanaam dafa bokk maanaam si pays si maanaam continent tiers monde yi wala Sénégal dafa bokk si pays tiers monde yi genre yi moo tax a tëdd nga sa jëkkër deret bi génn na boo amee problème sàngool sër bi boo ko dindee après boo ñaanee yàlla yàlla dindi sa jëkkër si problème boobu ñaata nit ñoo fi am problème nekk seen ak seen i jëkkër ñaata nit ñoo fi am problème ak seen i jëkkër sër yooyu noonu loolu laa gis nga problème yàlla moo koy def si biir gis yàlla bu la nee da fii allah kulli xaal mënoo wax ba doo fi jàll ñun nag suñu ñàkk gëm yàlla nag moo ñu yóbbee yenn yi te nit boo si àdduna il faut nga gëm yàlla gëm destin. destin mooy fi nga xam ne foofu la lay yàlla di jaarale. nag lu ñu wax baax na trop naa xaaral maam yi waaw bàyyi la mu wax rek bàyyi ma eggali damay eggali damay eggali maam yi si sànq maam yi waaw ñu ñu may ko benn ñu may ko benn benn deux minutes mu àggali waaw pareeguma waaw ñu may ko mu àggali waaw ñu mu àggali ñu wax donte am na valeur ñu wax dëgg moom mënul am benn dëgg rek na si yenn yoo xamante am na si yenn na nekk waaw ñu déglu am na nekk waaw ñu déglu ko li muy am na solo ñu déglu ko bu daanaka bu yi kon laa wax lii dafa am solo li may wax ni bàyyi leen si bu baax a baax man li may wax dama ko xam dama ko dund yaa ngi dégg la maam na si yoo xam ne am na si solo mais xel di xalaat ay problème ay sa sër bi nga sàngoon problème problème la boo ci waree génn génn gi léegi beneen bi xam nga mooy lan sànq kii mu ngi doon wax ay maanaam jigéen <laughs> boo ko kiiwee comment dire euh, jigéen boo ko takkee da ko war a suturaal ñu tëgg sabar ak affaire yooyu man yooyu góomu ko ah xam nga la moo tax góomu ko parce que tey jii ne adduna dañoo toll fenn fi ni man dama jàpp ne man mbëggeel dépendre si jigéen am ndaw jigéen ñàkk ndaw jigéen ñu tëggal ko wala ñu bañ ko tëggal mbëggeel dafa dépendre si ñaari nit yi nga xamante ni ñoom ñoo bëggante lépp lu def non damay may ma daaneel ba pare da may ma daaneel ñaar ñooñu noonu ba pare ñaar ñooñu noonu bu fekkee trouvé nañ benn accord mhm. nañ ñun ah, ñu kat bëgg nañ defee nii bëgg nañ defee nii mhm. mais yàlla ak yërmande mën leen suturaal mhm. ba lu ñu bëgg seen àdduna ñu def ko mais kanta ay tëgg yeeg di siiwal nit ñeeg naan ay day tax ñee am jom gis nga loolu noonu buñ ko fi defoon ñi ñàkk jom dañuy ñàkk jom ba bëgg dee ñi am jom dañuy am jom gis nga am jom ak ñàkk jom si nit lay nekk mais nekkul ay dañoo tëggal kii. waaw joxe micro bi waaw waaw léegi ñu may kii mu na ñu <laughs> man ak sama tubaab bi kii xaw ma lan laa ko war a. tubaab la ñun loolu dañ dund ba pare tukulóor rek la mën mais ñun moom ko ba pare. Mm-hmm. loolu moom dëgg la muy sër bi nga woddoo bi ngay tëdd ak. ak sër bi nga xam ne sa xaalisu can nga ko mm-hmm. lépp loo si ñaan boo jàppee ba sell lépp lu ci ñaan bu soobee yàlla yàlla dina la ko defal muy nga jotee sa jëkkër muy nga jotee keneen ak keneen ñaan ci yàlla rek loo ci ñaan yàlla mu may la ko. macha allah mais ñun boobu loolu lañ gëm. te loolu la ñuy te man bëgg sama nawle képp ku ma déggal di ko def parce que dina la yokk dem dina la dina tax nga xam sa bopp xam fooy taxaw mais quant à ay liñ demee nii amul sens parce que mën nga biir yàq xamuñu de xamuñu ba tey mais soo laabaanee nag ñëpp xam ñëpp teg ci bat ku la neex di nga xuloog moom ku la neex da nga xaaxal yow amul ma wax mais loolu sutura ko déglu ko waaw ko ñu ko ñu ko mu ko mu ko ñu ko ñu ko may ko may ko may ko may mais l'essentiel ñun li nga dund ñu ngi bëgg a dund ñun ñu ngi koy dund parce que xam la moo tax gis nga ndaw jigéen lépp lu mu ko jaar na ko parce que sa jëkkër dina la respecté say mbokku jëkkër say nawle say àndandoo. yaa ngi tax gërëfaat maa mi xamuñu woon mais mais lii suñu suñu jamono la suñu jamono la am nañu ko daan dund lool. lii suñu jamono. waaw ñu déglu ko ñu déglu ko waaw ñu may ko euh, li ñu dese li ñu dese ci lii lii nekk ak fi mu jëm. parce que tey vendredi bu jotee dinañ def fii olof. waaw sam bu jotee yëpp. ko ñu déglu ko ñu déglu dund daal li ñu man daal lépp lu may wax mooy hmm. maa ngi ñaaxaat sama mbokku jigéen kenn ku ci nekk tey sa bopp xam sa bopp xam ci askan bi nga bokk diñ am dignité fëkk bañ laa yóbbu fonk sa bopp fonk sa cër ndax defe naa ni góor bu la taxee def ci yow li mu war a def ci yow war nga koo mën a fagal siggil ko taral ko li ñu koy fagalee nag du lenn ndaw kese la ak suturaal ko parce que néegu dafa xam te xale yu góor moom bon nañ bon boo xamante ni ndaw moom mënuñu la koo suturaalee même pas un mois commencement bi la rek lu law la ñuy xulóowee ak yow ci nga bokk façon gi ni ma la gisee ci nga bokk lu ndaw rek lañ ngay xulóo ak ñoom ñu waxal la ni amoo a waaw ñu déglu ko en tout cas daal man taal ma si mën a wax mooy jigéen taa war na respecté sa bopp xam yow laay kan téye sa bopp tamit ndax mhm. wax naa moom ndaw moom lu am solo la ah, ndax boo ko amee nga sa jëkkër dina nga respecté say mbokk jëkkër dina nga respecté ba yow tamit dina respecté sa bopp xam bu baax yow yaay kan ah. ñu ñu jox sox sëñ bi. waaw ñun daal ñun moom moom moom mooy loolu noonu. Mhm. waaye kii moom li mu wax day leen loolu moom lu naqari dégg la. c'est parce que bi ngay teg lañ gëmul. Mhm. fii lañ fi fekk moom lañ fi fekk te moom la ñuy ànd ak moom ba wéy. te yow xam nga Afrique Afrique ngi nii ñun defaluñ sax puso defaluñu sax ñun pënë sax mënuñu ko defar kon kay ñun dañ ànd ak suñu tradition mais bu fekkee da nga bëgg a changé loo philosophe. kon kay yow demal nga defar pëna yow mënoo defar sax puso puso sa dëkk mënu ko defar ventilateur noonu ñun dara ñun yëre ñu sol sax nii sax tubaab bee ko defar ah. donc pour ñun amuñu dara nañ dee suñ tradition bi ci àll bi lañ dëkk ñun kon boo ñëwee ñëw tey nga bëgg a taxaw naan ay noon nangam nangam ay laaba sax ça sax sax ah, puso moo damay la nañ am suñ tradition pour lan mais mais yow lan nga fii capable mais tu n'es pas capable yaa ngi ni fii partout yow foo dem waaw ñu déglu ko waaw waaw ñu may ko ñu may ko lii dese ci temps bari woon ñu may ko mu ñu may ko nous ah ñun fii ay africain lañu bàyyi seen moo yooyu. non si moo fiy dee moo fiy kii yaa ngi nii nee naa la. warul bëggul baax yow yaa ngi nii nee naa la xamoo sax. ñun nee nañ ne lan la ñu gën a. ñu ñu lan la ñu parce que mentalité boobu. ñu déglu ko ñu déglu ko sama xam laa lay xamal. waxatu ko ñu déglu ko ñu déglu ko yow pour ñu contrer. waaw ñu déglu ko ñu déglu ko xoolal yaa ngi bëgg a rey sa bopp. ñu déglu ko ñu déglu ko xoolal sama bopp xoolal mais ñu déglu sa ñu déglu woon te waaye ñu déglu woon te ñu déglu woon. waaye léegi yow mooy yow yow dafa naan mais kii nii mais mais mais dafa naan dafa mais dafa naan kii bu fekkee dafa naan ay whisky na ko wax ñun fa ñun la xamal ma li ngay wax ni Sanix ci yow la yam ci ni ñepp ñëpp nga gis ni waaw ñu déglu ko ñu déglu ko contre 1 la yow fii nii yow dong yaa nek nekk di expliquer loo xamante ni jigéen ñi ñii waruñu koo dégg ñi war ñu sa di dégg yeen yi ngay wax non noonu ay ay ligne de miel ak ay. ça va t'amener malchance. ma te di saa hein? yow nag xuma la yow say mbokk ëpp tradition. tukkulóor yi ëpp tradition ay fanweeri fan lañu nek di seetal ko dugg fu ne deubal la fi bo wékk la ay ñu xoox ak yu ak lu ne mais nga bëgg réew bëgg ñu ko dàqloo. waaw waaw salaamaaleykum ñu jox ñu jox mboq mi mu wax. ñu dox ñu su ko woon te ndax ñetti rek daanaka léegi ñu émission bi jeex. man moom maa ngi maa ngi maa ngi maa ngi apprécier kenn ku ci nekk gis-gis bi ñu ci am ah. gis-gis bi ñu ci am parce que kenn ku nekk ak sa tolluwaay kenn ku nekk ak sa gis-gis. mais juste que ni rek man fi may revenir mu doon encore aussi benn conseil boo xamante ni maa ngi koy yóbbante mboolem koo xam ne mi ngi émission bi nañu xam ne fi mu nit moom bu juddoo la mu fekk ay maamam ay maamaatam ba ci ay waajuram di ko def da war a def parce que loolu mooy dëgg te loolu mooy suñu cosaan mooy suñu aada nit nag boo wàccee àndam ànd li wolof di wax naan boo wàccee sànn ànd boo dem fekk fa borom parce que boo ba boo bàyyee li nga moom dem ci leneen loo xam ne moomu loo koy tamit da nga réer kon ñun suñuy maam xamuñu woon lune de miel kon ku ci bawut lune de miel moom doo dégg jàmm sëy ba dugg du fan beneen ba mooy beneen bi ci topp mooy fi mu toll nii gis nga gis nga gis nga gis nga gis nga li nga xamante ni da daan da daan soññ nit ki pour mu am jom am fulla am fayda bëgg boppam gën a gëm boppam amaat confiance ci boppam. non kii waxu fi dara. boo ko wàccee rek fi mu toll nii perte nga dix perte nga la set. ñàkk nga lépp ci àdduna wallahi azim donc en en amee conscience man fi may jeexale rek fi may jeexale fi may jeexale mooy kenn ku ci nekk la nga xamante ni say waajur doon nañ ko def démb ak bërki démb ba nga juddu. fexeel baawu ci tànk yooyu te ko def te xam ne loolu mooy doon li lay jëriñ tey mooy doon li lay jëriñ ëllëg leneen loo def loolu loon ci góobee na ko gar parce que bokk nañ ci tey ji fi bi ñuy xool fi jamono toll buñ demee ba ndaw jaral nit ñi ñuy dem bay uti ji waat de ay ndaw artificiel hmm. kon ñu xam ne ndaw am na fu mu lu mu bokk ci ah, àdduna am na fu mu toll ci àdduna foo xamante ni dafa jar bàyyi xel te dafa jar a dund macha kii déglu na kii kii wax na lii kii tontu na ku ci nekk daal am na loo xamante ne indi nga ko te lu am importance la li may wax sama mbokku jigéen ñi rek dañ am fulla am fayda gën a gëm suñu bokk la maam ñi daan doxee suñu yaay di ko doxee ñun nañ ci ñëw rek daal di ci euh, waaxu buñ ñam ci dox ci mais nañ ci waaxu di leen jox di daje